nañ ne exploitation autoroute bi moo ko waral journal bi nee na fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2020 njiitu président Macky ci discours à la nation waxoon nañ tamit taxe foncier bi dana jóge mille dem huit waaye nag mbir moomee ba léegi ana fan la toll exploitation autoroute Dakar AIBD Diamniadio maanaam fan la toll loolee ab laaj la boo xam ne journal bi di réew mi quotidien moo xëy di ko laaj yéen a gi di Walf xëy na ñaari Samba Sall kii ne ba léegi ni maanaam poste nag kenn ko fa waaye la nga xam ne moom la journal bi xii di mooy lan moo tax poste boobee maanaam ñu baree bari intéressé wu leen yéen a kaay gi di réew mi ñu xibaar nan ñu upp ndekkee baax na ci laax bu tàng ndax coalition Yewwi Askan Wi bëri ay gox yoo xam ne seen liste yi dañu ko rejeté woon waaye nag nga xam ne préfet yi ak sous préfet yi ñoo ko defoon magistrat yi ñoom ànduñu ci xam ne rejeté woon nañ ko ci gox yu baree bari daal nañ koy delloo fu ci mel ni Mbour fu ci mel ni Saint-Louis fu ci mel ni Pikine fu ci mel ni Diass yéen kay gi de la témoin nee na ñi nga xam ne ñooy àttekat yi ne ma magistrat yi ñoom nag jubbanti nañ bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy préfet yi ak sous-préfet yi yéen kay gi de la Tribune nee na bëri woon na ay liste yoo xam ne dañu ko annulé woon loolee nag maanaam tegi wutoon ci yoon moo tax magistrat na ca ba tey ci yi nga xam ne dakkaloon nañu ko annulé woon nañ ko rejeté woon nañ ko daat nañ leen koy delloo yéen a gi di enquête nee na opposition bi mujjee nañu leen a sauvé yéen a kaay gi nee na nag liste gëm sa bopp bu bugaan gi dañu ci diwaanu ndakaaru ba léegi ni nag dañu ko rejeté moo tax bugaan daan nay def beneen kalaame yéen a gi di Dakar Times suñu xëy fekk fa Samuel Sarr moom nag daan nay yàq musiba ak mbelengaan Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ak consort nee na Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias mérito wuñ sax maanaam ñu leen di woowee ay opposant ndax ñi ay mercenaires lañ yoo xam ne dañoo infiltrer opposition bi te nag benn mission rek la ñu am fii ak 2024 maanaam déstabiliser li nga xam ne mooy réew mi maanaam andi fi fitna te loolee du leen ko may ba tey ci biir journal bi moom Samuel Sarr daat nay wax ne manque d'expérience bi nga xam ne moo am ci opposition sénégalaise bi loole moo yàq li nga xam ne mooy suñu démocratie bi ndax Abdoulaye Wade amoon na ñoo xam ne ñoo ngi ko doon opposé waaye nag ñooñee ay om d'état la ñu woona waaye nag ñii nga xamante ni ñoom la ñu gis ñuy opposé xam ne seen lépp ci fitna la ba tey ci biir journal bi de la njiitu réew di président Macky Sall ci forum de Paris sur la paix daat nay wax ne mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci adduna bi seen intérêt mooy Afrique daal di développé Afrique daal di suqaliku ndax nag ndimbal li nga xamante ni moom la ñuy dimbal Afrique loolee di solution bi yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy mbulancé yi ñoom nag dooraat nañu ñetti fan yoo xam ne dañu koy gréwa duñu lakk mburu kon jamono ji ñi nga xam ne ñoo bëgg a ndékki bay boo ñu dem ci beñe bi wala ñu dem ci laax bi wala ñu ci mbiskin mi Momar Cissé journaliste ci réew mi quotidien nga xam ne ñooy njaayeen yi ak njóobeen yi ak jaxate-jaxate yi ñooñu jamono ji dañoo tumuranke yéen